dellu siwaat bi sant ak koy Modou Ndiaye a nee na muy sant nag Modou TV bi wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ki tafi a li def a bugaani bëgg na ko a waagaani mën na ko den fo tayoon it na parce que wax dëgg fee de que barke dem ba tey oxeme nee na Modou Ndiaye a ngi fi dara dadin bëggul ne gaa ku ilaa bo France bona aduna fa ne kene ilaa lay tout direct mu ngi directement mu ngi nii ga anoy ci internet bi fii ba ba la même wa jege wamba ande rek nak fi ngeen toog doo leen ñibi sax depuis après après après adaka jegaan ni néna ñetti fan amna ko fu ñal fu ñaal pot nam xamni fofu fu ñal ta dik di ñaal dik ñaata nga fi am ci tay ñetti bëccëg mercredi mardi ci ngone nga ñew mm. fanan fanan fanan mardi mm. mercredi jeudi ak manam ñetti guddi ak ñetti bëccëg bu fekkee day ñibbi tey waaw to laaciraama dara nente laajuma derem derem nee na derem to gita andan yàlla xam na laaciraam dara laaju ko dara ndaa mexe ñaana nan waaye mu ngi lay ñaan yàlla sam ta moof nee na suñ Modou Ndiaye yàlla na nga toog bo njega télé xoox nee na am sa télé bo baatin nu ken ko ci lii na nga toog ba foo jëmat nu ndok xa ba toog nee na ngeen dugg jegay nee na am am nga oto na am lu leen indi ay kii la ñu yore woon ay moto. nee na ay moto lañ indi woon yal na toog ba doon ay oto nee na yal na toog ba doon ay oto wax dëgg sant naa leen bu baax nee na wax dëgg sant na la bu baax jërëjëf Ndiaye nee na jërëjëf Ndiaye xam nga xam nga nit ku ràññee ku ñu xamul rek yaa ko def nee na nit ku ñu xamul yaa ko def waaye defoo dara waaye defoo dara bëgg ñu xam la bëgg ñu xam la loolu kenn du ci xam loolu kenn du ci xam waaye gis ni ma leen xamee waaye du gis nga tey ni mu la te yàgguñu te yàggul te tey wax dëgg yàlla fu ma la gisati xam la tey fu mu la gisati xam la te dara te dara sa njub sa njub ak sa mbaax ak sa mbaax ak sa bëgg liggéey rek waaw te it waxuma ko woon ne ñëwal nee na te sëñ bi waxu ko woon ne ñëwal moom daal mooy def rek moom mooy def rek ñu ngi koy gërëm nee na mu ngi koy gërëm di ko sant bu baax di ko sant bu baax an miye wax naa ko ne buure temps booy dem li si kayitale yóbbul kayit yi kewene mbi na fop li ñuy def yëpp walay ne kenne fop nga ne ko lii lépp te l'intérieur mbi eegu moom la waa l'intérieur daan def kala ke ta na o ɓaata sëñ bi nee na lim bëgg nga yokkal ko ci te ref fa gaz xa cawir mooy gaz yu ñuy toggee walay axo ngi yo ten waxoon nañ la ko ah, yere wa gaz xa teɓa xene koy nee na nekkul gaz yu fo yit ak itam doron neena na wax doron na xotit na bes neena bo am day ñew rek di naaw ci jaww ji di jël bes bi gamore neena gamu gi fa dayma neena ag na fo xamni camera bor bor ke camera kesse mba geesu tok fa ne mo na tula gene kaw gi doron rek neena doron rek waag no yoru neena moko moo ko mën a filmer neena filmer ko a ah, coox na télé jox ko télé yi ak média yi ñu yor ko tasaare ko yam ka ne to deme or na nee na ni mu léegi yéegoo ci kaw am na loo mën da gis kene loola bu jotee ah, doron daal ko ne i moom la ñu nga jàppale ñu dolli ko ci li doon def ak loo yéene nag yaa sa na yàlla nañ ci yàlla fekk ci barke siñ sa nee na na ñëpp ku i jang na a alquran nee na luñ fi jàng ci alquran ku lu ñu fi juli ci yonent bi ku wirde ena mee luñ fi wird ku jangeen na xasaay lépp luñ fi jëf incha allah lii di ñëw dinañ indi drone mën nañ koo def ba nga xamante ni drone bi image yi day mën a génn ñëpp di génn incha allah rabi ñaanal ñu baax rek waaw toog leen toog leen comme la ma la waxoon téléphone laa yoon alhamdulilah indi nañ ay ay ay caméra incha allahu rabi bii di ñëw dañuy indi ay drone te ah. dinañ ko mën a filmer nee na ñooy nee na incha allah déwén bu ngóor gi indiwul drone it moom dina indi drone bu ñu indee mu indi drone incha allah nee na jeex na